ñu fàttali leen tey na dañuy seet Idrissa Seck fukki fan la war a def Touba mais Idrissa Seck Touba ci boppam ña ngi koy commencé adopté Idrissa Seck ca génnam yi muy génn yëpp yëpp yëpp yëpp ndam yu mag la ci am mbooloo ngay topp Idrissa Seck actuellement la force tranquille de Idrissa Seck tey dañuy dem seeti Idrissa Seck fi nga xam ne mooy ca Mbàkke ca biir Mbàkke ca biir Mbàkke Idrissa Seck nag ca Mbàkke ca biir ndax xam ngeen ne Touba kenn du fa tëggiy sabar xam ngeen ne Mbàkke tamit kenn du fay tëggiy sabar waaye nag ma nga ca région de Diourbel boo génnee tuuba génn Mbàkke ña nga ca Diourbel ñu xoole Idrissa Seck nag ak ambiance ba jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant yàgg leen wax ne sikundik sikundik ne jine joomal la laa ndiig bo te ma bëgg ngeen jàpp ko seen bopp bu baax te xam ne mooy sama bàkku ne sikundik sikundik idi joomal na laa ndiig doom ma ne sikundik sikundik idi joomal na laa ndiig doom jërëjëf jërëjëf dama ne boo leen seetloo boobu ba léegi maa ngi commencé wax waaye saa yu ma yëkkatee sama kàddu ñeenti nit ba juróomi benn nit ñoo may tontu te li ma leen di laaj duñ ci tontu déedéet dañuy xul ak man naan ma xool leen ko ma ngay wax loo xam ne amul ay réponse loolu du avancé loo Sénégal Sénégal boo ko jàppee jëmmu nit féppay metti bopp baa ngay metti ndigg laa ngay metti tànk laa ngay metti gémmiñ gaa ngay xeeñ nopp yaa ngay xasan Sénégal dimul dikkul te fu mu ne nii dafa ngas dama il faut que le président Macky Sall xam na ne man xam nga lan laa ko jàppee président ngaaka maa ko wax ngaaka la maa ne Macky ngaaka la su ma leen waxee ngaaka la moom xam na fa may waxee ndax nandite ci boppam mooy gis ngaaka te su ma ne leen ngaaka nag du ci daw dara ndax mun naa ko tegal lu tax ma ne ngaaka am na benn taasukat boo xam ne dafa nekk ci orchestre Youssou Ndour ñaan ko mbéy géey fay daan na wax ne nandi te du ko weccoog lan la waxoon am kaarapitu waaw waaw dama ne conteneeru ngaaka benn nandi te ko gën ma ne damay défier le président Macky Sall. di ko xamal ne ko bu fekkee ne man su ma waxee ay cokotoom ñooy tontu. ñoo xam ne ay bojo bojo lañu man du ma wax ak ñoom. waxoon naa fi ne dama bëgg ñu def face à face ma ak moom. nañu dem ci Alaaji Assane Gueye penc mi. ñu teg ñu ci penc mi. ndax Alaaji Assane Gueye doy na ma kon journaliste boo xam ne lu mu laaj la bu ma amee Alaaji Assane Gueye ah. am Pape Ngagne Ndiaye yéen a may dégg journaliste yi ak nga xam yoo nekk ca jàkkaarloo kenn ku nekk séquñu ah. waaw boobaa suñu xel dal ñu xam ne amul parparloo dama leen di xamal ñaari mbir ah. dama ne Sénégal wax naa leen ko sànq bu fekkee ne jëmm doomu aadama la yow kaay laa ilaaha illallaah daf na Sénégal demi Sénégal lay joxe. xam nga ne kii mooy Sénégal. benn boo gisee Sénégal bu njëkk ka ca jamonoy Senghor. waaw Sénégal tolloon na ne manga deux. yaa may dégg. yow dem ba ca kanam Abdou Diouf yor Sénégal. mu daadee nuroog koo xam ne mbër bu wàññi poids la. ñu dem ci Ablaye Wade. Ah. Sénégal tamit wàññi poids. Ah. bi ko Macky Sall la jëlee au mu xool ko. maanaam xoju ko. daa koy xontu mu sekki. waaw <laughs> da ko ngacc ba mu mel nii. ba pare foo jàpp dangay dégg mun na ay day metti foo jàpp Dakar Tëngéej Thiès Ndar Kaolack Diourbel Tamba Kédougou foo jàpp day métti foo jàpp day métti foo jàpp day métti foo jàpp mu metti fu ma laal mu ne ay yow wuy yaa ngi may gaañ kon nag foo làmb rek ci secteur bu nekk ni ñaa ngi fay jooy xale yi jàngatu xale yi jàngatuñu docteur yaa ngay gerew Sénégal demul dikkul léegi nag man mi nga xam ne maa faj jàngoro yi te gis ko ah. te mën koo faj te xam jàngoro yi fu mu ne waaw waaye kon man maay sikundiig sikundiig gina jomal dama ne déggu leen ma de dama ne sikku ndiig sikku ndiig joom man na laa ndiig doom àndul de